tey jile 15 juillet 2022 bokk na ci li ñuy fàttaliku ci atum 2005 euh, 2005 euh, waaw bés bi ñu tegee loxo Idrissa Seck nekkoon euh, premier ministre ci mbirum chantier Thiès yi moom mu nekkoon maire bi moom mi nekk jamono ji njiitu conseil économique social et environnemental daanaka def na lu toll ci ñaari téeméeri fan ci biir kaso bi loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen mbir yu xewoon fukki fan ak juróom ci weeru juillet ci at yu wuute ñu dellu si. fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2019 Ousmane Tanor Dieng daal di génn àdduna ba muy am juróom-ñaar fukki at ak ñaar li kii di Ousmane Tanor Dieng daal di génn àdduna ca Bordeaux réewu France moom mi fi nekkoon ministre d'État ak premier secrétaire bu parti socialiste nekkaale woon tamit président du haut conseil des collectivités territoriales HCCT ñu rob ko ca ngéñeen mu di village fa mu fekk baax ay nit yu bari teewoon ko ku mel ni président Macky Sall ak ki fi nekkoon président Mali Ibrahim Boubacar Keïta. fukki fan juróom ci weeru juillet atum 2017 drame bu rëy amoon foofu ca stade Demba Diop final ligue nationale football ci Dakar diggante union sportive Wakam ak stade Mbour daal di àndaale ak ay xeex yu metti diggante supporters yi ba benn ci tribune yi daal di daanu jot def lu toll ci juróom-ñetti doomu aadama yu ci ñàkk seen bakken ak ñu bëri ñu ci amee ay gaañu gaañu. fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2011 armée française daal di joge ci ay basam yu mu amoon fii ci Sénégal ñu rapatrier force française Cap-Vert yi nekkoon fii ci Sénégal depuis atum 1974 ñu nar leen remplacer ak dispositif bi nga xamante ne dañ ko tuddee élément français au Sénégal tey ñu nar a taxaw ci fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2005 bis bi ki fi nekkoon premier ministre di Idrissa Seck ñu daal koy yóbbu ci prison bu Rebeuss ci affaire bi ñu noon tuddee chantier de Thiès dëkk bi nga xamante ne moom moo fa nekkoon maire ñu toppoon ko ci détournement de deniers publics loolu waral mu nar a des ci biir kaso bi ci diiru téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti fan ñu daal koy libéré juróom-ñaari fan ci weeru février atum 2006 gannaaw ba commission d'instruction haute cour de justice daal di jël boobu la dogal mu doonoon jamono jooju li nga xamante ne presse bi da ko tuddee woon protocole de Rebeuss Oumar bokk ci membre fondateur parti réew mi nekkoon témoin ci boobule affaire bi nga xamante ne ba léegi mooy nar a marqué dundinu politique bu Idrissa Seck. Euh, coow li bari woon na ci wax dëgg yàlla. biñ ko euh, bëggee jàpp def nañu ay procédure ay inspection générale d'état et cetera et cetera ñu xëy rek ñëw jël ko. ne ko da am luñ lay jiiñ ci chantier de Thiès yi ci wàllu alal waaye bi jàpp bi amee itam ba mu yegg euh, xawma dañoo jàpp ne liñ ko wooyee dafa oyof ñu yokkaat ci lu ñuy wax atteinte à la sûreté de l'État euh, lii mooy li nga xam ne mooy xew-xew bi euh, njàngat bi ma ci def nag tey ndax boobaak léegi yàgg na mooy mbir daal bu xewee li ëpp solo mooy nga teey ci nga sàkku si jàmm wax ci li nga xam ne mooy dëgg je crois que loolu moo ñu ci génnewoon ba bi ñu demee juróom ñaari weer wala juróom benn su ma juumut ndax ci février cinq février lañ ko ne lépp lu ñu la doon tuumaal loolu yoon teggi na ko ci jamonoy Ablaye wàdd la woon booba président Macky Sall mi moo nekkoon premier ministre ah ci lañ ko géré ba yoon daal mi ko jàppoon ne ko yow setal nañ la politique du loo xam ne nii dañu war a di ci sukkandiku di di di faagaagal ay nit di leen sonal di ñaawoo ndax bu ñaawoo bi demee ba benn dayo bi juboo gi day xaw a jafe euh, may rafetlu aussi ginnaaw bi diggante président Sall ak Idrissa Seck booba président Sall nekkagul président je crois que kenn ku ci nekk soldé nga sa ay compte digganteeg sa moroom ba jàmm euh, sa di disons dellu si ci seen diggante ndax ñun ñëpp wax dëgg yàlla ci keppaaru Ablaye Wade lañu la fendee ci la ñu màggee bi may wuy ji Ablaye Wade sénégalais yëpp mere ma bi ma ko wuy jee li ngeen jàpp yéen ñëpp mooy poste ma fa yóbbu wala ragal lu ma def luy dox sama digg wax ko dëgg bu jotee moo xew loolu lañ doon tudde diil merci beaucoup Marcel euh, Farba Maroun Idrissa Seck euh, euh, président Macky Sall mi ko wutu woon jamono jooju te primature daanaka moom moo siiwaloon rapport IGE bi ñu ko doon incriminé moom Idrissa Seck ci boppam ci mbirum chantier Thiès yooyu. waaw dëgg la parce que mbirum chantier Thiès tamit Sénégal mënu ko fàtte mm. mooy projet bi nga xam te la waa moom na ko fii ci région yi pour célébrer indépendance Sénégal ñu tàmbale woon ci Thiès. 44e voilà 44e parce que. moo nekkoon en même temps maire Ndour doon woy ak ñoom Ousa muy loo xamante après coow li bari moom bañ ko jàppee Idrissa Seck Macky Sall euh, Omar Sall day defar rek mais mhm. jafe-jafe amoon na te Macky Sall moo nekkoon déjà ministre bi nga xamante kon avant rek ñuy dàq Idrissa Seck mu nekk ministre de après moo ko remplacé fële nga xamante moom mooy ci primature mhm. Mhm. donc moom moo fi nekkoon en tant que premier

mënuñ cee leeral ba léegi ci yan condition kon la Idrissa génn à la d'une élection présidentielle après sëñ Abdou Al Amine moo jàpp ci loxoom yóbbu ko ci Ablaye Wade la suite on la connaît parce que ci la Ablaye Wade defee bu mag ba après ba nan ay jinne ñoo ko voté loon mm. les acteurs nag sont toujours là vivants di di kii gis nga ku mel Mahmoud Saleh moo njëkk a tàmbali avant sax ñuy kii doon wax coup d'état rampant ba moo ko doon théoriser ne Idrissa nationale. voilà moom ngay déggaat a affaire force spéciale bi ça revient toujours ci li nga xamante ni kon. Mm-hmm. mooy politique Sénégal moom comme cercle la rek di tourner en rond on n'évolue pas. Mm-hmm. alors que quand même. te ba léegi da doon wax El Hadj pas un seul centime nee na wuñ ko ci loolu nee na de compte la woon moom Idrissa Seck. waaw mm, ca la waxoon ba jant bi fay. Mm-hmm. jusqu'à jusqu'à l'extinction du soleil amul dërëm bu nga xam ne mën nañ ko justifier wane Euh, de toute façon ci ci la doon waxi tamit le fils spirituel mhm. le fils euh, d'emprunt mhm. ak le fils biologique muy digganteem ak Karim ci la génne woon i tamit CD yooyu nga xam ne CD 1 CD 2 et cetera donc mu nekkoon vraiment benn feuilleton bu bu bu yëngaloon réew mi ci ay jamono am na ñeneen ñu ci jàppoon ñu ngi fàttaliku Salif euh, Ba. Mhm. ah moom euh, itamit téyewoon nañ ko ci. am na ñeneen ñu ci téyewoon moo nekkoon ministre de l'habitat à mhm. mais ñëpp dañ loon mujjoon bàyyi téye Idrissa Seck moom cundum mhm. mais au finish. gis nañu ni dañ ko mm-hmm. weexal tàll mm-hmm. Mm-hmm. ni deful dara ba tey euh, mu continuer di briguer suffrage yu sénégalais yi di continuer di exercer ay responsabilités ba jamono ji nekk président conseil économique social et que ça a été impact euh, bu bu am ci carrière politique am par la suite comme ni ñuy faral di wax euh, le sénégalais n'aime pas bu ñuy bu ñuy bu ñuy maltraiter peut-être injustement kenn kenn ci seen i seen i compatriotes donc mu yóbbu woon ko dans les vers les jours électoraux électorale mu jël mu résultat bu baax lors du premier tour en en 2007 mais malheureusement euh, li ci li ci topp mooy euh, voilà ce qui s'est passé on, on attendait vraiment d'Idrissa Seck un, opposant farouche bu mënoon jël peut le relais de de maître Abdoulaye Wade euh, dans les urnes. mais demeewul noonu malheureusement Idrissa Seck fourth président. on se rappelle en tant que doyen des juges à l'époque moo jiite OFNAC merci beaucoup euh, Martial euh, Farba Maroun euh, Chérif ak Alaaji Malick léegi léegi dañuy soobu ci xibaar yi ñu ànd ci ak Fatou Kiné Deme